yéen a ngi teewlu info 221. Adja Deme bëgg a dugg ci actualité nag waaye Ousmane Sonko xanaa nekkul wax ak Ousmane Amine Khalifa Amine Khalifa moom day kilifa rek waaye man dama xalaat moom moom bëggoon naa ko wax. waaye hmm. jarul. Euh, ñu ñëw ci hospitalisation bi nga xam ne Ousmane Sonko def na ko suma euh, ñu gis euh, déclaration ba mu fa def aussi itam muy ne dafa war a indiwaat beneen façon xeex bu bokkul ak concert de casserole. ñu gis ni moom euh, dem na sax ba wax ni dañu war a def grève générale ndax jàpp nga ni loolu tey jii bu ko Ousmane Sonko dooroon dina am réussite comme na mu ko amee woon ci concert casserole bi ndax euh, gis nañ euh, ñu ci bëri ñoo xam ne si nii dañuy dañuy xëy di dem di daani seen doole lañuy dañ cay am ci la ñuy dépassé est-ce que grève générale boobu tamit dana doon loolu. waaw luy sotti daal. man de lenn xam naa ko mooy déclaration bi def comme question première boobu ñu wax. Hmm. mooy déclaration générale bi. conférence bi ñu def keroog ci wàllum euh, suma assistance boobu mm. am na solo daal daa ma am solo man tey jii donc dégg naa soxna soxna nee na ma yàlla xam na ne gëj na maa lekk gëj na maa naan baloo mais du tàng rek laay naan mais ni keroog ma gis ko nee na ci laa loolu ñoo xam ne mënu leen ñu ci laay fanaan a jóg dëgg dëgg dëgg ñaar la benn mooy mu xamal gëmal communauté mm-hmm. na lu ñu def loo xam ne dinaa leen leeral la ndax ñu di ko def benn rek mooy dañ ko waroon def jël sama bakkan waaye sottiwut waaye ginnaaw bi ñu ko defee itam jamono jël sama bakkan ñun naa dem faju ji ñu gaaw delloo ma beneen clinique a ko xamee a mooy déclaration bi dafa am solo bu fa def nag ndax situation ndax ndax euh, yi ñu ko doon defee situation yi ci yi ñu ko doon defee moment bi mu ko doon def moom hmm. boo xam ne ku ñuy def déclaration war ngaa wax leneen lu bokkut ak la muy wax waaye loolu rek si hmm. hmm. ña yóbbu kii ca réewi tugal ya ña yóbbu uh, analyse ci réewi tugal ya bëgg a xam lan moo la dal te kiiwul yow amaana ñu ñëw ne la da dee amaana ñu ñëw ne la nangamal la loolu lépp faale woo ko yow yaa ngi xalaat combat bi suñu kanam nga naan mbokk yi combat bi jeexagul kon yow des fois xalaatoo sa problème mënoon na fay nekk dinaan waaw waaw gis ngeen li ma daal ndax man maa ngi dénkaan lu ma daal ñoom mm-hmm. bi xamal leen ne leen bi day daanaka jeex na la ci des nag moo gën a metti li li ñu def moo gën a xamal leen ne itam ne leen mm-hmm. moytu leen di def loo xam ne dañ leen ci man a jàpp te loolu bu ngeen ko defee ginnaaw bi du leen jural dara xamal leen ne bàyyi leen waxu ci saw ji ngeen dëkkee mooy nekk naan kii da ko a jege kii daaw doon gi naan kii ay defee ay affaire defee yooyu ñoom dañuy toog i kër ndax ñun lañ leen di doyee du du accompagner Ousmane Sonko xam nga loolu ñun kenn doyewuñ leen mhm. xoolal euh, keroog suur bi mu nekkee ci salle bi moo ko aji saar loolu lu ko gën amul taxawaay boobu a am taxawaay hmm. bu ba ko gaani yéen moom gis nga ba ci yow li gënee bari keroog taxaw ci ne taxaw na fa kon yooyu wax la yoo xam ne koy wax sëñ li woo denc licence dafa suufee nit nag ab général nag mënut a nekk ay ay ay liet a tàqal nitam ñi nga xam ki nga xam ne démb la leen am démb la leen bi agsi bëgg moom du ko nangu du ko ma su a bilaal lu yoo xam ne li lekk di ko dundee man ak moom nee na wallaay laa boo ko defoon ci bilaal nee du feeñ kon tuur ne ko wax waaye du ko jàpp hmm. ku bëgg gëmal Ousmane Sonko ne ko bilaal soto mu ne dara léegi dëgg dëgg taxawaayu ñooñu mooy taxaw di wax loolu ci ñoom kon bilaal soto euh, day ñun patriote ñu ngi di ñu ngi leen di soutenir dafa di seen doxee nag Alma Elmari na ko yàlla taxaw dana ko yàlla génne te ñun soxla nañ ko soxla nañ ko ndax vraiment niveau euh, communication bi mu am ak patriote ak niveau intellectuel ak niveau d'intelligence bi mu di jàppale Sénégal di jàppale patriote dalal seen xel koo fi yi mu gën a bàyyi xel ci waxi projet rek dafa taxaw ci daal publication yooyu rek am na solo mm. waaw léegi nag bu dee euh, loolu la mm. euh, Ahmed Tasrif li ma la ci xamal mooy loo xam ne la danañ ko wees ci kàttanu yàlla du doon problème. ndax jàppoon nit euh, la la fi amoon muy maanaam euh, yoon bii laa jaar doo fi jaar nii ngay jaar ndax. jàpp ah tey loolu mën naa amat ndax ndax gouvernement day jàpp ne bu soog koo toogee ne fu ma neex laa jaar dafa laas dafa laas def xaw ma dañ koy defaat ñu ko defaat loolu indi ndax dañuy bëgg dan mm, kenn féetu kanam kenn féetu ko kaw. force la loi yooyu la ñuy impose yooyu mooy nekk seen i tête ba duñ duñ bàyyi am jàll te te gouvernance du noonu. Hmm. yow daal parfois da nga gis yoo xam da nga xam ne lii mooy sax yoon hmm. lii mooy sax li nga bëgg waaye da nga gis ne boo ko indee day indiwaat yeneen conséquences ci kanam nga sëgg nga door fa xam hmm. fas fas xam waxul sa waxul salaamun xasa wa taala moom yàlla waxante ne ko gars yi jéggal leen te may wax nga wax jàmm hmm. après ñoom conséquence ci seen kaw lay këpp état lii la daa war doxee noonu waaye yow daal bëgg nga nit gi parfois am na doole jox jàpp nga ne mu ngi lay méng doole jox nga ne boo ko bàyyee mu jàll dafay manqué te ñoom xam nañ ne moom sa waay ah wax dëgg yàlla Youssou ñu seq ak moom combat bu ñu réussir ñaari moom ñaari atam yi lan dong lañ ma leen laaj tax ñaari at yi ñoom loolu ah, deux mars ba deux mars la am na ñaari at ba ba tey réussir ko hmm. kon ne li ngay fexe rawat na boo ko wutee bëggee wala nga bëgg ko dem ba bam loo néew yaa ngi koy waaj am nga ko naka nit ñi doxee nañ xalaat ay borom xel lañ ay borom xam-xam lañ hmm. te yaakaar naa Sénégal kenn wur leen ko gën a bëgg effectivement loolu daal euh, maa ngi leen di xam ne loo xam ne lu jàll la. Hmm. man la loo xam ne lu leen di satisfaire wala lu leen di amal benn njëriñ. Hmm. coow képp la fi yokk te dëkk bi kat ah tiit naa ci de. tey wax na nga wax loo xam. daanaka tiit naa daal. ñu ñëw ci ci ci ci Waly Diouf Bodiang bi nga xam ne eh, eh, te woon nañ ko moment bi ñu libéré ko waaye takkal ko li nga xam ne mooy bracelet électronique muy lu doy waar loo xam ni eh, ñu koy doog a gis ñun sa gis-gis ci loolu. lu mu doon ma balaa seen activité loolu takk maanaam dama dem may sira bala ma ci kaso bi ma toog parce que waa ji yow defut waxut lu tax waa jële balaa waa jële waa jële nañu rey Ousmane Sonko ak waa jële kooku lu ñuy xaar jox bracelet électronique bi nga wax moom moo gën a grave wax de mm. c'est-à-dire mii réew daal sëñ bi maanaam mi ngi bëgg a tàbbi géej daal vraiment wàllu mm. Diouf lan la wax ak lu mu def te wax na ne man sama rakk ma bokkoon lépp ci la faatoo ci seen grenade lacrymogène yooyu am am na kooku te Bilal Diatta laa ko jaawale mm. Bilal Diatta rek Bilal Diatta waaw léegi weeru junni ni ñu koy toppee du loo xam ne war a man maam daal mbir la moo xam ne man fii mu ma fës na ma kaw lan la leen def bañ a dañ koy takkal bracelet électronique boobu parce que nee nañ wala dafa nekk sous contrôle judiciaire wala dañoo bëgg fu mu nekk ñun nga xam ci lu nekk wala dañoo bëgg daal boo xam ne am prise prisonnier la boo xam daal libéré na ci jëm waaye waaye libre libre bi daal ci ci ci ci li ko yóbbee na mooy bokk Pastef Pastef moom bokk ko ci maanaam délit la bokk Pastef encore une fois itam crime la bokk Pastef ku ko def waxtu mu ne à tout moment man mën nañ de prison képp ko ne hmm. parce que loolu moom délit la fi crime la encore une fois ci mu hmm. réew interview bi nga xam ne président def na ko ci express hmm. euh, lu jëm ci mbirum troisième candidature euh, mu ne moom constitution Euh, aayewu ko mu def li nga xam ne moom mooy troisième candidature sa gis-gis ci loolu ndax jàppoo ni moom pour le moment jamono ji parewul pour euh, imposer li nga xam ne moom mooy troisième ah, candidature waaw waaw mu ne candidature mu ne constitution aayewu ko mu doon candidature Macky Sall daal ay waxam xam naa ne Macky Sall est-ce que actuellement nii est-ce que Macky Sall actuellement nii nii nii nii nii Macky Sall ma ngeen xamoon la sëñ bi la waar Macky Sall kii dafa ko toll ni moom Macky Sall dara ngi di ko yàlla ji Macky Sall Amadou Sall ci sa wet ma dem jëmm Macky Sall yow say doom ci sa wet yow Macky Sall yow Marième Faye sa nga taxaw wax nii ak la nga waxoon nag loolu Macky Sall war na ko def mm-hmm. daa xamul ne tudd élection quatre ma quatre ko di koy wax ci urne lu ñu koy waxee voix bu ñu waxee voix lañ koy wax de na cinquante voix di woon na di woon na vingt voix loolu wax mm-hmm. voix mooy kaddu kaddu googu moo ko wax bind ko moo ne man mënutuma nekk candidat bi mooy sama dernier mandat effectivement léegi wax jooju noonu nam kon mooy li sax constitution tey loolu waxee boppam la ak bëgg-bëggam ñu ngi ko fi xaar suñ constitution Macky Sall du ko jalgate ñu di ko fekkee mm. Macky daal bu mënee rey réew yi tabax tabax mm. ko bàyyi mu ñuy gouverner ci ci wax yeneen nee na loi tëru kon dèjà kon na ñoom conséquence na mooy dogal mm. kon was dogal conséquence la kon amatul njëriñ wala kon jàll amaana kon lam jàppoon ne Abdoulaye Wade defoon defaloon na ko ay carte jox leen ay kër ak xaalis boo defaatee jàll loolu la gëm moo ko waxoon de Macky maanaam xara kër ak xaalis lañ leen jox loolu la ñu bëgg a joxaar kon dañu war a jël ko candidature waaye ñoom Sénégal ñu ko fi xaar Macky Sall bii ak ñu ngi wax naa ko ko waxate ko ko Macky Sall 2024 mois d' avril kañ moo yow avril mooy xam defee loo ci mën waxal waaw dootoo dootoo ko feete dootoo ko feete da ngaa jeexal te ñun Sénégal yi duñ la bàyyi nga di ko ñu di jaam xam nga ñu duñ ñoom jaam ndax dara luy tax ñu war a doon say jaam dañ ko xamut dara waaw. est-ce waxam jooju du dànkaafu tamit. waaw Macky moom dànkaafu conséquence na moom doxuñ koy wax xam nga hmm. na moom moom la wax rek dina am ne Abdoulaye Wade moo doon jox kër ak xaalis ñu ngi defal ko na jox kër wax de ñun ñoo ko tax di wax waaye ñun daal ñun la bokkul réew mi ñooy bokk naa na ko wax na ko wax rek loo xam ne Ousmane Sonko ñeme na koo wax man mi sax ñeme naa ko wax hmm. te moom mënu koo ko wax hmm. xam ne la ko tey fekk na ko hmm. rek ci eh, ñaari question yu mujj yi ñu eh, ci sortie bi nga xam ni Adji Sarr defati na ko ci jamono bi eh, di wax ne maanaam comme que ko àtte moom Ousmane Sonko est-ce que état bu Sénégal warut a négocier ak Ousmane Sonko teg mbir yi ci suuf sa gis-gis ci waxam jooju sëñ bi lu mu doon. waaw Adji Sarr woowu keneen ay wax. groupe ba nga xam ne. ñoo nekkoon ca loolee di lijjanti ay seen ma seen problème ak Ousmane Sonko. Hmm. ñoom état bi appuyé na leen ca la man nag appuyé na leen ci alalam appuyé leen ci ay ci ay ci ay ci ay combattant yoo xam ne maanaam dañoo seen làmmiñ bataille médiatique et cetera ak ak yëpp waaye loolu état bi. Hmm. dafa dem ba xam ne lii mënu koo satisfaire. ci li mu bëgg ci gàllankoor troisième mandat bu sawaay. Hmm. mu daal di ko bàyyi daal di wut ak takkum ñaareel. takkum ñaareel mooy dossier diffamation Mame Mbaye Niang bi léegi nag aaw ba ci boppam daa gis na ma jotatu lay àqam ak yàlla xam aaw ba aaw baa toog di wax di wax na man da ngeen da da da ma yor wala nga xasee ma ñibbi sama kër baay aaw mooy mooy projet bi Adji Sarr ba rek léegi nag ab aaw moom xam nga day fiir fiiraange leen dugg ñuy wax di wax loo hmm. gis na moom moom bu soo hmm. te kii gaa yi takkum ñetteel waaw dañu rek nateel de. nee na waaw <laughs> ñu ñëw ci jeexale ko ci dàmbooj dàmbooj gis nañ tentative de liquidation lañ ko mën a wax ay tiir yoo xam ni. Mm-hmm. ginnaaw ba émission bu mu defoon bi ñibbi eh, amal nañ ko ci kaw otoom muy bal yu bëree bëri yoo xam ne duur nañ ko ci kaw otoom eh, di loo xam ne ñun mosuñu ko gis fii. Eh, ci koo xam ni dafay toog di wax ay position ak gis-gisam ci li nga xam ne moo di réew bi. Ah. sa gis-gis ci mbir moomu lu mu doon. mbir mi rek loolu lépp ñaar la ñaari option lañ jàll. Hmm. benn option bi moom mooy la ñu daal lañ ko def noonu maanaam rey nañ nit te àgguñu moom foofee kon day mel ne moom ak dundam moom yàlla yàllaa ko jeexlu rek maata bi de nafsin maata dàkk si xadan baaji addun tamut dee mu jotagut kon bi sant na sant yàlla kon luy tax luy tax mu dee moom def nañu ko hmm. léegi nag lañ jublee mooy benn mooy nopp mooy moom bu faatoo itam dootul wax dootul waxat lu mu dégg ñu réussir benn point beneen bi ci des mooy même bu réussir ñeneen ñuy wax hmm. mooy su ndax man bis téléphone bi fu ne jotee naa ko ay whatsapp appel normal kilifa bu ne waaw léegi bul doxati guddi bul demati émission man leen dem ba mu ñaax ma dem ba mu ñaax moo demee yooyu ñoom ñu réussir liñ bëgg cest à mooy toogoo nit ñi dem leen ba mu neex leen sëñ bi nit nit maanaam laa yastaaxiruuna saa'atan wala yastaqdimuun nit bu dee sa deem jotul de te ku sa dee jot itam ku sa dee jot itam foo mën a nekk dee dana la fekk ba hmm. xam ba dane dee loo xam na la genn rek la waaw xaman la ñemu bis say maata bi xëy na ñu ko déwén ngir jaasi itam leneen moo lay rey képp hmm. dégg nga hmm. na taxa tax tafarraqatil asbaabu wal mawtu waaxidu nee na façon day moom wute waaye day genn rek la hmm. nee ki fa fatal rey ki aw nag bëgg mu dee ak gataa ba ci dem dee dee nañ la ñuy wax waaw te dañoo dee képp wu dee wuuti wut ci dara dee dee dee dong la léegi nag ñoom la ca des mooy six ay waa jële six six actuellement ñii bàmmu joxe na ay joxe na dimbali na leen ci enquête nee na comme daal surveillance jël na leen xam nañ leen effectivement te moom xam naa leen kon léegi bu fekkoon dëkk bu dëkk bu normal si suñu dox normal la da ngeen suñu ñu ngi ci waaye amul benn avancé boo gis ci mhm. wax wax moom euh, obligation la dafay plainte itam obligation la malgré doo am satisfaction bi boo mhm. bu nekk di wax léegi nag comme plainte mu def nañ ko ci fii mim réew te amul benn boo xam ne satisfaire na leen kon loolu dinañ dina satisfaire léegi nag Dame Mbodj moom bu mu wéy di wax xalaatam Sénégal soxla na xalaatam lool. effectivement ñeneen ñi nga xam ne ñi ngi daan wax di ànd ak moom di wax itam bu waxee ñu wax bu waxulee ñuy wax ñooñu itam nañu di wax ndax wax kat moo tax réew mi egg si fii. Hmm. su ñëpp nag woon na kenn waxatul waxtu bi ñoom ñi am nañ liñ bëgg bu yàgg. dañu am pression woon Sonko waxtu bi xëy na déglu déggul mu koy bët ba jekk bañ. Hmm. waaw loolu may wax jërëjëf si Modou xam naa kon dañ lay bàyyi rek bu dee am nga loo xam ne bëgg nga ko waxta laajuñ la ko mm-hmm. nga jaarale ko bu ko defee ñu jaaree foofu euh, tëj waxtaan bi mm-hmm. ah, ah, li may tëjee rek mooy élection yi mu mu la trente mi mm-hmm. euh, yi li ñu doon wax ne maanaam nañ jëru ko loolu day loolu da bi mi woote bari bi dafa bari le mois benn combat rek muy Ousmane Sonko parce que Ousmane Sonko ak bokkam mooy bokk Karim Wade Khalifa Sall ak ñàkk bokkam mooy seenum ñàkk bokk ñoom kon nañu benn ko benn combat mooy nañu jël xeex bi jëmale ko ci moom mooy lu ko jox liberté rek mm-hmm. lu ko jox maanaam mu bokk ci élection yi lu xam ne fii Sénégal dañoo bàyyi dañoo weesu nag foo xam ne président day dañ ca kaw ne si sis ma diw mm-hmm. tëjal nañ ma ko diw fexe na bu mu bokk ci élection yi loolu mooy wax ji mooy la trente nañ mobilisé ñun ñëpp doon benn say takkoo doon benn fexe ba bu ñu ko ba maanaam mu ñibbi ci jàmm ak salaam ñun bi de kenn du ko teg yenn daan dara duñ ko def luy tax mu am maana a mën a ñàkk a bokk ci élection yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ